asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi di leen ziar di ñëwaat tay rek seen kanam écran di leen jox secret yu am solo lol di baaxee suñu mbokk étudiant yi élèves yi ñi nga xamné ñi ngi waji def examen ñi nga xamné itam ñi ngi def stage ñi nga xamné ñi ngi ut liggéey bëgg am liggéey ñi nga xamné itam ñi ngi ci nekk ci liggéey sax bëgg conserver seen liggéey. maanaam ñu bañ leen see dàq wala ñu bañ si am ay jafe-jafe incha allah tey dinaa leen fas yéene indi leen si ay secret yu am solo lool lool yu baax a baax ndaxte examen yaa ngi jublu si saan chaque jour ma jot si ay message euh, pour ñu may demander pour seen wàllu euh, ñu dimbale leen daal si wàllu ñaan yàlla nag mooy mottali yal na yàlla mottali lépp yàlla barkeel ko ba ngeen xam ne di ngeen ko mën a am te mu jig leen incha allah. waaw euh, li ngeen gis ni itam maanaam ay saafara la yu ma bind muy kii yu bari yoo xam ne daanaka dañ koy bind def ko si benn soow bu mag da nga def si saafara euh, pour ñi nga xam ne ñu ngi ut ñu def examen examen yi di ñëw incha allah ñi nga xam ne ñu ngi siy jublu si euh, comme ni nga ko gisee nii si laa nekkoon si liggéey bi ay jour jour man doon bind kii gis ngeen kayit yi nu mu bëree maa ko doon xooj xam naa ne incha allah. Eh, ku ci am yitté mu soxlo ko sama numéro baangi non ci ki kii écran bi dañ may def signe rek bu ko defee ngeen wax ma né ma si saafara si ngeen bëgg boo ko defee ñu sét nak dañuy def euh ba ngeen mën ci am ak fu ngeen mënti nekk dañu xool naka la ñuy def mën ci yoni yónni def ko si ay butéel ku nekk mën ci am waaw ñaan nañ ci nak ñu ci ñaan yalla itam sàkku suñu ay yeneen kilifa yo xam ne ñaanal nañ ñu euh kon nak saafara si ñu ngi si yéene waaw si ku si soxla rek na ma def si ñu xool nag lañ siy def ba ngeen mën see jot incha allah waaw kon nag bi ma leen joxaatee mooy aaya bi ngeen di gis mooy wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahima ala qawmihi narfau darajatin man nasaau inna rabbaka xakimun alim loolu juróom-benn fukk ak ak ak juróom-benn muy 66 waaw 66 fois moom nga ko war a jàng wala moom nga ko war a bind su fekkee da nga ko bëgg a bind daf ko saafara bind ko aaya bi nii 66 fois su ko defee nga daf ko saafara di ko raayee chaque jour euh, su fekkee ni itam mënoo ko bind da nga koy jéem a réciter maanaam da nga koy jàng chaque jour saa boo jullee waxtu julli yi bu nekk nga jàng ko 66 fois soo ko mënta def waxtu julli yi nekk euh, am na si ñoo xam ne moom du ñu julli waaye maa leen diggal ngeen di julli ndaxte jullit nga nekk doomu jullit nekk jullit da ngaa war di julli waxtu julli yëpp. waaw da ngeen ko war a fas yéene di ko def comme ni ngay xëyee di lekk ndekki añ reer respecté sa rendez-vous lépp nu nga war a respecté rendez-vous yi sa diggante yàlla kon dee leen jàpp di julli dégg ngeen euh, kon loolu zikar la askar la koo xam ne nag yàlla dafa dogal ne doo julli moom bu la neexee tam nga toog teesu course di ko def chaque jour rek waaw incha allah waaw beneen bi mooy salaatul tasbih salaatul tasbih moo nekk noonu xaw ma ndax dina leer seen écran wala déet waaye bu leerul daal ngeen yónnee ma message ndaxte vidéo yi ni ñu koy montager parfois am na image yoo xam ne du xaw a leer waaye da ngeen may yónnee message si whatsapp bi comme ku soxla salaat tasbih bi ma yónnee ko ko si whatsapp bi incha allah dégg nga bu ko defee incha allah moom tamit lu baax la salaat bi lépp ñu ngi ko bind si français ni ni ngeen ko war a defee waaw ni ngeen ko war a defee maa ngi jégalu ni ngeen ko war a defee noonu euh, lépp bindi na ko si kii bi si écran bi waaw muy salaatul tasbih salaatu bu baax a baax boo xam ne guddi nga koy def sa guddi balaa ngay tëdd incha allah ngeen def ko ñi nga xam ne ñu ngi ut ñu ngi liggéey wala ñu ngi bëgg liggéey wala ñu ngi def examen wala ñu ngi am luñ bëgg moo xam sax si boo xam ne dafa xaw a naqadi wala diggante boo xam ne dafa xaw a naqadi lu mu doon daal salaat bi moom salaat bu baax a bi faj aajo la si zahir ak si baatin incha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek euh, kii bi ngeen gis noonu mooy saafara bi nga xam ne moom laa leen doon liggéeyal waaw muy ñëpp bokk képp ku ci too rek incha allah rabbi na mu def siin ci sama numéro whatsapp bi ñu xool naka la ñuy def ba euh, jox leen si ku si nekk rek ndaxte lii moom ñëpp xam ngeen si ndaxte nekkul sa benn euh, show bi laa si def def naa si yeneen show pour que ñëpp mën see jëriñ ñëpp mën see jot ak fi ngeen mënti nekk nag da ngeen may def si sama numéro whatsapp bi rek bu defee incha allah rabbi fi ngeen mënti nekk ñu xool naka la ñuy def ba ngeen mën see jot incha allah rabbi ñëpp mën see jëriñu ñu def examen yi ay ñu def concours yi ut liggéey wala ñu am liggéey ba ko conserver lépp daal taxin nañ ko si muy ay ay am solo yoo xam ne moom lañ ko liggéeyee incha allah kon nag euh, tey lii laa fas yéenoo indil leen ko yéen euh, xam naa ne dangay jëm yem fii rek di leen ñaan lu yàlla di sàkku ngeen ñaanal ñu yéen yàlla dafa leen tawféex dafa leen taysiir dafa leen xikma dafa leen fatxu dimbale leen si lépp la ngeen di yëngatu. te bes bu ngeen demee nag ba ba jëriñ ngeen jëriñ seen réew jëriñ seen diine jëriñ ñëpp kon ma leen koy waxee rek waaw da ngeen bàyyi xel euh, ñi nga xam ne politique lañ bëgg a def ëllëg nag bés bu ngeen demee ba bokk suñu ngànk réew mi fexe ngeen jëriñ réew mi jëriñ seen bopp jëriñ ñëpp waaw te ngeen bañ a loraate kon ñu ngi yem fii di leen jox di daje suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh